tey nag dellu waat nañ ci seen émission waxtaan fas yéene leen indil beneen thème bu ñu naan labat donc ñun ci niñ ko baaxoo xamee labat mooy nga gis jigéen maanaam nga bëgg ko ngay waxtaan ak moom bëgg ko takk léegi nag jéego yi ngay dox pour loolu antu loolu mooy labat léegi nag bu ñu xoolee dañuy gis ne labat bu njëkk ba ak léegi dafa am différence. kii bu paree rek pour man war na xool moom tamit xale bu pare. mu ànd ak moom mm-hmm. lépp mu bañ a yàgg. Euh, dëgg-dëgg ki koy def mooy ki pare. la. ku pareegul yow mënuñu ko oowee labat. ñu naan déjà euh, labat bu bu gàtt. Mhm. sëy bi dafay yàgg. Mhm. yenn saa yi nga am labat bu gudd te sëy bi du yàgg. Mhm. parce que léeg-léeg ay nit ne dañu soxla temps pour xamante. alors que peut-être mën nañu am cinq ans te duñu xamante. parce que nit su bëggul nga xam ko doo ko xam. te li mu bëgg nga xam si moom tamit loolu ngay xam. xam nga maanaam labat man ci sama dégg-dégg mooy préliminaire. te préliminaire nag dafa am ci lépp rawatina ci loo xam ne dafa am solo. te bu ñu xoolee ci àdduna wërngal këpp mariage maanaam sëy mooy contrat bi nga xam ne moo ëpp solo ci àdduna ndax lépp lu ñu mënti wax tamit si la ñuy sosee njaboot mm-hmm. boo sosee njaboot si ngay sos askan boo sosee askan si ngay sos dëkk si maanaam si la ñuy sos àdduna mm-hmm.